sëñ du Fata kuy wut sëriñ Fallu ba yam ci moom di nga taxaw nit nag gu santu nit du sant yàlla ndax yàlla joxut dara kenn mais amee daa am nit ku mu ko jaarale mu ñëw ci yow man bi may njëkk am passeport service sëñ Abdou Fata ma ko jox 2007 damaa toog rek sëñ Fallu mais woo ma na ma sëñ bi nee na daa soxla sa carte d'identité ak say photo ma jox ko ko passeport booba déwuma fenn signé ko dañ ko defar rek indil ma ko ñu teg ca ñaari at 2007 2009 sëñ sëñ Fallou mi waat ma na ma sëñ bi nee na bis sàngam daa bëgg ñu dem pale nga signé sa passeport diplomate sëñ sëñ Ahma booba bi may dem man ak ñi ma àndal fukki nit lañu fukki nit ñoo duggandoo pale bi ñu koy signé benn doomam moo ci nekk yaakaar naa soxna jaaral la kum jur ñun ñi ci des ñëpp kenn du ci doomam ci saay kooko buñ nee la baax na war nga koo gëm mayu ci lu dul benn nit muy doomam suñ fataakoon li sëñ aboo moom suñ jiili wax kuy wut sëñ fallu wala muy wut lu baax boo egsee ci moom di nga taxaw nit ku baax la nit ku teete ak njabootam la yamale doomam akub taalibeem ak ka jóge ca àll ba la yamale lu mu war a ji ci lu baax rek dina ko kon nag Mbàkke ñoo ngi la koy seere li waral ñu koy seere nag mooy day jëf ju baax joo xam ne képp ku sant Mbàkke ci askanu Sëriñ Fallu wi ak ñeneen ñum xamul defal na leen kon loola Mbàkke ñoo ngi koy seere sëñ jiili moom baatin bi nga wax sëñ aboo loolu man maa ko def maa bindu bu leetar dem fekk ko daaru ma naan yàgg na boobu damay bind benn kaamilu alxuraan bi ma ñëwee yoru leetar bi avant ma koy jox leetar bi maa ngi koy nettali sëñ baaram sëñ ji sëñ sëñ Mamor léegi ak sëñ Alaaj Njaay avant ma koy jox leetar bi mu ne soxna Mayka indi añ bi ñu ñu añ bi ñuy raxasu nii ma jege ko am ku koy defal muy raxasu mu mu ba mu yàgg mu daan dema mbàkke mbàkke bu ndaw xool ko fi ne de bind na leetaram def ci poosam asalaamaaleykum yow sëñ mbàkke man la min mbàkke nanga ma wax la ma wax waxte leetar ba barke alxuraanu karim te joxaguma ko leetar bi ne ma mbàkke mbàkke mu ndaw xaalis rek xaalis rek daa di yëkkati kayitu téeméer yooyu yu baree bari dafa sëq ba loxom fees mu jox ma ma boo demee jënd ciy téere wala la nga bëgg a jënd rek kon sëriñ jiili ngàcce ngalaama ci baat yéen nag Mbàkke yéen a mel noonu gis nga li ma bëgg nit ñi xam ko nañ téye suñu bopp téye suñu taalibe buñ foyee suñu bopp gis nga njabootu suñ Tuubaa gi ku leen moytuwul di nga yàlla na ma yàlla jëgal ci wax ji di nga laal laalaake te jamono ji dafa yëngu dëkk bi dafa yëngu coow li bari na wax ji bari na nañ téye suñu bopp téye suñu taalibe ñii ñooy suñ Tuubaa ci ñun billaahi ku ko ci defut la ngay dajeel mi ngi nii ci sa kanam dëkk bi nag li fi ne santaane yi bari na commentaire yi bari na wax ji bari ñu naan sëñ bi léeg sëñ bi laa suñ yoon nekku ci sëñ tubaa daa xàll mu neex mu ñëw seen maama ko moom nañ leen bàyyee seenu dëkk bàyyee leen ak seen i ndigal ku mën a jafe-jafe ku mënut a jafe nga dem ca àll ba salaamaaleykum wa rahmatullah